bu avril jotee terre bi daw ñu ne waaye mais c'est normal il faut que ñu essayer tubaab bi nag moom jaar ci digg bi ne non du démarage essayage lay doon peut-être bu fekkee dina am encore que essayage bu amee il faudra ñu tester bu ñu tester il faudra ñu qu'on soit sûr que mun nañu am cent mille cent mille cent mille personnes transportées par jour. cent jam personnes personnes est-ce que loolu mën na nekk. tubaab bi wax de. léegi man xam nga loolu man xaw ma ko woon sama nguur waxuma ko waxuma yooyu yëpp détails yëpp daf man rek teer baa ngi ñëw fii dina toj dina neex ambassadeur bi su waxee loolu fi ma am problème mooy ambassadeur bi dafa weddi sunu nguur ñaari yoon ñetteel bi mu teg ci ne mu ngi souhaité en tout cas mu ngi proposé mu ngi wax comme kuy joxe ordre parce que Philippe Lalliot moo remplacé Christophe Bigot bi fi nekkoon. Mm-hmm. et Christophe Bigot avait la même démarche Christophe Bigot moo fi demoon Matam il y a taxaw di wax suñu ay élection ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc fii ñu toll tey qu'est-ce qui se passe le l'ambassadeur de de la France nu di que léegi jam ñaajo bi nga xamante ni asma fa la terre bi am mhm. moom dafay proposer léegi bu ñu jógee ci phase essayage ak tamee jam ñaajo jëm AIBD pour que terre bi nekk Dakar AIBD noonu la ko tënkee donc ci gàttal asma mhm. tubaab bi loolu def na ingérence dugg ci te dem nag sax mhm. Yacine ba tubaab boobu di wax ci kaaw Guy Marius Sagna yow ñu lay jiiñ dara ñu jàpp gi Marius moom ambassadeur bi nee na comprendrewul attitude Guy Marius Sagna ak France dégage frappe France dégage seen mouvement donc moom comprendre ko que daal euh, voilà c'est quelque chose de loo xamante ni dafa gênant et cetera et cela veut dire quoi qu'une personne étrangère est en mesure au Sénégal de dire di nekk buur bu mi loo xam ne sénégalais xalaatu ko en France asma c'est révoltant révoltant ñu may rek Yacine mu wax ñu ci xalaatam bon déjà comme li Pa Assane wax c'est assez révoltant une personne ba nga xamante ni bokk suñu nation suñu culture déjà qu'il est l'ambassadeur de ce enfin après je ne sais pas le droit boobu noonu nan la def ba am ko mais c'est inacceptable c'est vraiment inacceptable lan moo tax ña nga xamante ni ñi ngi ci nguur bi wala dañoo bokk si parti au pouvoir pourquoi ils n'ont pas pris la responsabilité tout simplement en disant à la population qui a besoin de savoir li fi xew exactement déjà nee na moom terre bi moom leer na que ni mënut a daw léegi nii mais am na ñi nga xamante ni ce sont des victimes ñoom bakkañ waa Rufisque Kër Mbaye Fall bakkañ secteur boobu loolu lañ nar a dund ba tey jii nii pour revenir sur benn point je trouve qui est assez important gis nga TER tey bii di tey jii nii bu tàmbalee yaa ngi wax cent mille personnes mais cent mille personnes boobu day fekk ñu am pouvoir d'achat déjà dëkk bi metti na denrées de première nécessité yi yokk nañ ko leneen ak leneen ak leneen donc ce sera un minimum de population ñoom ñooy am pour opportunité de dugg ci te ce sera un, un luxe donc dañ ko nar a fay mais ban njëriñ la ñuy amal exactement de donc TER bi bu daweeg bu dawlee baasa nañu waxante dëgg fenn rek rek rek rek ñoo nar a am problème de pour man ñoom ñoo nekk di subir moo ñu dëkk côté boobu noonu nañ leen bàyyi. à raison. absolument <laughs> absolument absolument absolument alors euh, ma bëggoon tamit nga ñëw rek euh, sur un petit euh, sur le retour un petit retour sur le rapport des cours comptes mm-hmm. de de de de mm-hmm. cours des comptes cours des comptes ak le signalement de de de Moundiaye Cissé qui en a parlé Euh, pour diir que euh, lenn rek la président xam nga corps d'élite bu mag su jëlee def liggéey ñu ne fonctionnaires yi gën a xarañ ci Sénégal ñi gën a mag ñu ne ay magistrat lañu. ñu liggéey te président bi moo créer bu dee OFNAC moo ko teg cour des comptes da ko fay fekk loo xamante ni voilà fii la nekk. cour de comptes ci jamonoy Ablaye Wade bu génneewaan rapport Ablaye Wade da daan jël décision. au pire des cas di nga wàcc c'est la première fois ci ci àdduna même je veux dire que la législation la la, la le carcan judiciaire on va dire le le parquet dans un autre sens vis-à-vis des magistrats qui travaillent ci cour des comptes def rapport rendre compte gëstul leen ñu gëstu bi lan la damay laaj concerné bi mu wax ma jël loolu ñëw ne la lii la ñu gis ci ay faay nga ne noo euh, dañuy teg benn commission après dina xool kon yow corps d'élite boobu amatul valeur yow yaa ñëw fekk Sénégal institution nga ne institution yi duñu ñu fonctionner comme ni ma ni ma ko bëggee te baax na ñu fàttali Sénégal benn affaire ñun bokkoon nañ si ñi nga xam ne yaakaar lool wax dégg sax ay nit xam Sénégal dañu am benn nattu nattu bu mag nag boo xam ni dinañu perteloo daanaka suñu àdduna mooy dañuy gis dëgg nii xam ne lii dëgg la mu leer ñu nañ ñu jël def toog ca ba pare teg ci nag naan la yàlla nee na xam naa yàlla fa <laughs> di mu mere mbaadu yàlla yàlla bay sa tool bàyyi yàlla yàlla bay sa tool. waaw ñu déggee sa Yacine soxna Asma ay dara seen tur yu màgg yi nañuy sóor yàlla tuuti xam nga baax na nga ne ci àdduna di dugg di génn mais yow doo dara pièce sax la ëpp doole. parce que pièce bu feeñaat. wallaay boo duggee si fini soit jën yi lekk la wala nga doon yàq loolu rek mm-hmm. bu dee suuf si moom waxatuñ ko. waaw léegi koo xamante ni amoo benn prérogative benn pouvoir yàlla ne la yoon bi fii la xanaa boo dëngee dëng dëng ba fenn fi nga war a mën a nangu dëgg dëgg mooy lan mooy kii nga xamante ni Moundiaye Cissé dafa wax ci rapport yi dafa ne président de la république du Sénégal lenn rek la mën a def jamono bi ginnaaw bi rapport yi génnee au moins démettre ñooñu ñu tax ñu taxal xanaa dinañ leen ne may leen ñu tuuti ñu gëstu bu dee defu leen ngeen dellu si yow t'es pas d'accord sur ça. Paasan mhm. kenn duñu guléet tamit de. xam nga rapport Cour des comptes yàgg na te dëgg la léegi ci ci ci surtout nag ci ci jamono bi ci régime bi te loolu xam nga lan moo ko indi. léegi de ñan ñi dañu naan dóor sa doomu jàmbur téye sa doom protéger ko. làq doom waaw mais mais pour man faiblesse la. parfois les gens ont une certaine dose de personnalité boo xamante ni ndeysaan dañuy yërëm. léegi-léeg yërëm bi nag indi faiblesse te yërëm bu bare ak faiblesse te ki ñu sàkk dàq ñoo gën ñoo ëpp yërmande sant ñu à un certain niveau dafay nekk yëfi munaafiqun mu Njaay Cissé dafa ne président de la république na démettre ñii après ñu xool li si des te loolu mooy dëgg leneen lu ñu fi def nag day nekk favoritisme te dafay jur injustice dans le futur parce que li xew nii ci mbiru rapport yi après Sénégal xam lan moo fi am asma léegi man damay dem bokk ci nguur gi rek pour mën a am jàmm. def lu ma neex. dellusiwaat ki nga xamante ni mooy l'ambassadeur de la Chine mi ngi dalal xel waajuru ñi nekk fale ci Chine. kay daf noo yëpp. ambassadeur de France daf ñoo yëpp. kii moom daf romb miin. daf ñoo miin moom daf ñuy tutoyer moom. daf ñoo téléchargé Badou. mais comment se fait-il que de trente mille cas. en Chine. ngeen quarantaine ñëpp. kon jéggi na dayoo ba Chine def déclaration ne affaire bi ëpp na ko loxo di woote wàllu yow nga toog biir Sénégal gi nga xam ne yàlla na jàmm sax. parce que mi ngi biir amul benn macha allah yàlla na yokk. nga ne Sénégalais yi seen njaboot yi ne fële yéen grawul la situation amul problème léegi kon kon moom mooy wax dëgg wala waa Chine ñoo waxul dëgg. mais est-ce que tamit defu ko ci optique bi nga doon waxee fii keroog nga ne euh, bu ñu tiital waajur yi ndaxte nit bu mënul nekk si re euh, ba pare nga yokk ko ko est-ce que du lool ki tiital waajur yi ki xam nañ ko <laughs> président bi génn ni ñii mënuma si ñoom lenn la yàlla xam doy na mais c'est-à-dire que l'ambassadeur de Chine te foofu dinaa interpeller les médias sénégalais sunu confrères yi réew dafay toll foo xamante ni la carapace la peau dañ koy jël teg na le xam ni urgence am na gis nga bu mar de Italie balaa bu mel ni Ebola wala lenn amee journalisme dootul existe avocat dootul exister xam nga luy am nit kese dañu toll ci situation boo xam ne àdduna bi dafa jaxasoo feebar bi. mu ngi mu ngi mu ngi jël ampleur bu bu inimaginable. c'est vrai mm. démb waxtaan naag kilifa bu mag suba teel démb ci dimanche bi. suba teel ah da ngaa namoon suba teel yow da ngaa namoon suba teel. exactement ci heure yi huit heures ci suba ci dimanche bi mu may jox mu may wax ci feebar bi kilifa boo xamante ni dafa nekk ci ci secteur bi di ma wax ci feebar bi ne ma li gën a garaaw te mu ragallu mooy nañ ñaan yàlla mu bañ a dugg waxul Sénégal de Afrique. Mm-hmm. mu ne ma Afrique yëpp. Mm-hmm. amuñu masque bi. Mm-hmm. maa ngi nuyu xam naa mu ngi ñu si daan parce que c'est un verru de de Soubatel mu ne Afrique yëpp masque bi nga xamante ni moo lay protéger contre loolu amu fi mu ne masque bi du masque yi ñu foog masque bi dafa am parti buy téye virus bi am partie bu lay permettre nga noyyi donc ça coûte cher. xëy na président la République Macky Sall foofu la doon waxee. yéen kay lii yaa ngi soog a wax kër gis naa ko jugee Chine. ñu yor masque yi. parce que Chine dañ ko ko doon distribuer à l'aéroport. xam nga kooku ñëw na yor yor masque bi. Mhm. li gën a graaw déjà. j'espère que xool nañ ko ak maskam. moo xool nañ ko mais nee na Sénégal xooluñu ko alors que Dubaï bi mu fay dugg dañ ko xool dañ ko xool. ñii seetaan mhm. bay noté leen boobu beneen bi te loolu bari na ay exemples yu ñu ci dégg. Mhm. beneen bi mooy masque yooyu bu dee amul continent africain yépp nañ ñaan yàlla kon mu bañ fii dugg waaye li ma jaaxal chinois yi bu ñuy ñëw fii Sénégal bari na ci ñoo xam ne France Air France la ñuy dugg Air France day déggu France ñëw fii wala jóge ci dëkk yi ñëw fii te ñooñu bu ñu ñëwee fii contrôle bi ci war amul donc kilifa bi daf ma ne benn masque yooyu amul fii ñaareel ba li ñuy wax capacitation de gestion de maladies infectieuses daanaka ndëgërlaay bi des na waaye am na ci kenn koo xam def cee xarañ lool te ba tey dégguñu ko man te man su ma bokkoon ci nguur gi wala di waxtaan ak ñoom ci benn niveau dinaa leen ne mais yéen kii ngal la bi Ebola amee moo fi toogoon di wax ak ñun di ñu wax lan la feebar bi Eva Marie Coll Seck c'est vrai spécialiste des maladie infectieuses nkàngam la ci ndaanaan la ci ci àdduna bi reconnu mm-hmm. mais comme casting bi dañuy politique politicien ministre de la santé bi ñu fi teg moom du domaine am ci ça la vérité donc moom munu dégguñu ko ci sax munu see wax kilifa bi saa Diouf Sarr ñu ngi laa nuyu ba baax waaye yàlla rekk a tax ñuy wax ak xam-xamam ak capacité mag ci domaine am xëy na dañ ko naan géral ministère bi en terme managérial waaye santé du gestion managériale. santé xam-xam la éducation xam-xam la dam mm-hmm. ñaari ministère a noonu yoo xamante ni. Mm-hmm. waruñu ko jox ku ko xamul. Mm-hmm. ku ci nekkul ku ko dundul. donc tey Sénégal mu ngi ci benn guuta boo xamante ni guuta administration gestion et cetera guuta bi gën a metti nag santé ñun xam fu ñu jëm su ne nii maar day taalib bu ñu ne woon ah. ah sax xam nga corona du fi dugg. laa xaloo laa xaw laa. Sénégalais ya fa ne. dara du leen jot ce sont des messages subliminaux. Mm-hmm. <laughs> waaw tamit tamit. tamit mun naa mun naa par rapport ak ambassadeur yi parce que bu France jàll na fi après ñu ñëw nii ñu ne kii moom yabuñu daf ñëw miin. moi je dis que ñu doole bi ñu fi am fi Sénégal la ñu war a wàññi. Mm-hmm. suñu doole étranger di am fii mm-hmm. xam nga dañ ñoo yëpp. naan ku laa bëgg yëpp nag fu ko neex ngay xool dëgg la mais xam nga yëpp ñu fan la commencé. tey jii da ngay xool benn ndaw euh, euh, benn sénégalais bu deewee France wala ay sénégalais def est réagir par rapport à ça. non intéressé ko te pourtant da cee war a génn wax. tey jii Chine ñu ngi fay jàpp suñuy jigéen di leen di leen def ay jaam di leen liggéeyloo ci ay ay. ñu leen di tëj doo leen dégg mukk ñu wax ci mais ñoom ñooy ñan pour ñëw war ñu wax. ne seen terre nii la war a demee mais y' a tellement des comme ça y' en a tellement yi. pouvoir bi ñu leen may fii c'est trop ñun ambassade Sénégal ba ne foofu amul sañ-sañu di génn di wax dara ci seeni nguur xalaatu ko sax donc ñun ñun tamit il faut suñu nguur ñu am personnalité ak caractère bu toll ni nee non voilà exactement gan bu nekk président Sénégal avant président